Le phénomène Asmbay, la révélation de tous les temps Asmbay, le lion Asmbay. kon gars attachez vos ceintures ñu dox ndànk jubali ba diwaanu Kébémer fekk fa ndaanaan bu mag boobu lii lay doon et son groupe Africa Rythme ñu organiser deuxième édition anniversaire Asmbay. di bisu ndaanaan di best ci événement des événements le plus grand événement bisu Asmbay lay doon le bu mag boobu lii te diwaanu Asmbay vous wax na mi ngi ko yëgal diwaanu Kébémer ak lii wëru Kébémer mi ko vous êtes invité ci anniversaire boobu le 4 le 5 le 6 décembre ca diwaanu Kébémer ca quartier Njéwél waa Kébémer di waaj waa Ndande di waaj waa Sagata di waaj waa Colom Fall di waaj koo ci wax mu la une seule destination te bisu as boobu noonu le lion ca diwaanu Kébémer ca quartier Njéwél gi yépp képp ku yeewoo Kébémer aas bis boobu sa bisa di ko yëgal autorités yi nekk biir Kébémer ak autorités bis boobu a def a a xale yi Kébémer na jes ñeer moo leen di baaxal ñii laaj ay interview day waar koo ci wax mu naan la indi seen destination ci bisu as boobu noy di tàkk saanu Kébémer di xewee ca terrain ngéwél gi xale yi góor ñi dañ leen ko bàyyee ndax as sunum as la gars na def lu doy waar nga nar a gis ay sañse ngir bisu as moo ni toll émission groupe Africa Rythme ci deuxième édition anniversaire mag boobu lii kon ñu ngi ko yëgal ñëpp as nee na vous êtes kon gars du yomb ci kenn